mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu C3S biy taxawu jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo daara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020 2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon na déposé ne dooraat nañu liggéey bi c 3 mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi jotoon na déposé daaw rek la ñuy jël ci loolu njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2021 ngir jël ci ñoom ñeent fukk yi war a jàll ci xaaj bu njëkk bi ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 bi ni'mati rabbika bi majnun jiital si nuyoo bi sangam bu baax ba di Cheikh Ahmadou Mountakha di ñaan sama borom yàggal ko fi te wéral ko di nuyu mboolem njabootug sëñ Tuubaa gi rek ku nu mën ne rek te di leen siyaare bu baax a baax naka noonu mi ngi nuyu mboolem njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gi muy njabootug boppam di leen siyaare te di leen ñaanal sama borom kattanal leen ba ndigal yi ñu mën koy jekku saa su ne noonu ko sëriñ Mamoun waxee nag jëwriñ yi teew. danoo teew si ndigalul sëriñ bi si ndigal loolu nga xam ne sëriñ bi jox jot na ko mu bàyyi ko ci Cheikh Modou Mountakha ngir bis bu màgg boobu nga xam ne moom la ñuy waajal di ñaar fukki fan si weer wii ñu nekk muy tolloog ba fee sa kër du Modou Bassir si ci Darou Minam sëriñ bi waxoon ni da see bëgg sant yàlla sunu borom si turu yàlla njukkale ko maam Cheikh Ibrahima Fall muy bis bu màgg boo xam ne bii dafa aaje nu waajal ko ndax du ndaw looloon looloo doon mm, sababu sëriñ bi tànnoon ci jëwriñ yi muy ñi nga xam ne ak njabootam lañ ñu ñu saytu si njabootuk Cheikh Ibra gi kuréel goo xam ne gii danañu waxtaan si lépp lu jëm ci luy mën a ñoŋal bis boobee ba mu mel ni ko sëriñ bi bëggee njaboot googu nag ñoo teew nii si kanamu sëriñ bi kon sëriñ bi mooy feddali ak di wax mbooleem taalibe yi fu nu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di wax mbooleem jullit yi ak képp ku am yéene ñëw teew si ñii nga xam ne ñoo teew fi kanamam sëriñ bi moo leen tànn ngir ñu taxawal ko si lépp loo xam ne mooy tax bis boo bi mën a mel ni ko sëriñ bi bëggee kon waxtaan wi nga xam ne nag moom la ñu dëgmal ñu xam ne ndigalul sëriñ bi la lépp lu si bàyyikoo rek kenn ku ne na xam ne loola mooy ndigalul sëriñ bi loolu muy bëgguk sëriñ bi te jubluwu si lenn nag lu dul sëriñ bi nga xam ne sangam bi nga xam ne moo koy lëggéeylu mu am si mbégte la mu si yaakaar ak la mu si séntu lépp mu am ko ndax bu ko amee rek noonu leen si bëgg lépp daanu ko am kon nag sëriñ baa nga leen di ñaanal di ñaan liggéey bi ngeen tàbbi si ak bisimilahi rahmaani rahim te li ngeen li ngeen si jëf rek yàlla dëppoo ak li nga xam ne moo gënal sëriñ bi kon kàddu gaa ngi noonu euh, sëñ bi nee na ngeen dem wéyal liggéey boobu ni nga xam ne noonu la leen ko digale euh, ngeen doxe ko noonu ndax li mu si bëgg lépp bu ko amee rek mooy sëriñ bi am mbégte si liggéey bi